amateur lamb yi arène nationale la ñu jëm le 25 janvier ak jeunesse production ci première édition drapeau Serigne Mamor borom Sadiaratou Touba la grand bu traditionnel grand combat bi di dox ci ñaari xale yu mën a bëre Ardo Junior bu Grand Yoff mbooloo ak Sa Thiès bu ndaw bu Guédiawaye mbooloo loolu di nekk première édition drapeau Serigne Mamor borom Sadiaratou Touba borom jaara yu baax yi Serigne mamoor mi nga xam ne ku mu ñaanal say mbir baax Serigne Mamor borom def léegi gis léegi dindi liggéey bayre ubbi wërsëg moo ci gaaw a mbokk yi aada rëfës bu fas bennoo dana fa laale ak aada mbër bu tefes gi booy saar bu golfu gaynde dana fa laale ak sita bu goomeen bu caaxoy mbooloo poti liiru dóor dóoraat dana fa laale ak bébé sita bu écrit Cheikh Mbaba trompe bu écrit jàmbaar di fa jàmbaarloog g bu écrit Lamsar caatu Castor bu Père Diaw di fa jàkkaarloog sox bu Grand Médine Mas 36 bu ressortissant Fatick di fa jàkkaarloog Labba bu Grand Yoff caatu kees Grand mbooloo bu Mansour Mbaye fils de Boy Niang Pikine mbooloo dana fa jàmmarloog Abou Ndiassé bu dóor dóoraat Ahmed Dof bu Ndiane di fa jàmmarloog Boy Njaxas gi bu ko Sow a Jeunesse Production ma ne leen yenn sponsor ñoo leen gungee ci bis bu mag boobu ñu ne ma King Boisson buuru boisson yi maire Ndioufa design sa jaratu Touba bu Serigne Mamor ak Taïf Karo bu Jibi Bamba nekk en face hôpital Sétéwo nga xam ne lépp loo soxla ci wàllu karo ñoo ci numéro un Jeunesse Production fàttaliku mbokk yi bis baa ngi noonu di bisu jeunesse production le vingt cinq janvier fii ci arène nationale jeunesse production di structure ba nga xam ne ay xale yu am jom ñoo ko taxawal fas yéenee marqué seen empreinte ci làmb ji mbokk yi grand combat baa ngi noonu di dox ci diggante Ardo Junior bu Grand Yoff mbooloo ak Sa Thiès bu Guédiawaye di combat jinne ndax ñaari xale yi koy bëre ay ndaanaani lamb lañu kon le vingt cinq janvier fii ci arène national ak jeunesse production ñu yëngal arène nationale ba mu yëngu ay ñu eh, ngi delloo ziar Omar Sall bisimilah auzu billah bisimilah inawal yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di bëggee ñëpp di di ziar sama mafia bi di nuyu ñoom Mame di nuyu ñoom Laay ñoom Moor di nuyu sama Baye Fall yi ak mafia bi yëpp ñu nekk Kër Massar di nuyu ñoom Abdel di nuyu ñoom Ibou ñoom Khalil su ma limee daal damay juum avant tout Omar dafa am ñaar ñu ma bëgg lim ñu jàpp si combat bi te dañoo sonn si combat bi. kenn gi mi ngi tudd Moustapha Jamil si bu Pape Cheikh keneen gi mi ngi tudd euh, Ousmane Sy bu Kasor moom moom moom Ilam sécurité si bon sama grand la sama gaañ la instant yii dig na ma sax ay bolok biyee Moustapha Jamil Sy moom moom dama koy wax maa ngi sa ginnaaw saa su wootee su ak ngoon maa ngi sa ginnaaw damaa jëkk ñaari kaar ak bolo ko biyee dinañ ko dem jëlee incha allah rabi di bëggee ñëpp nag di ziar ñëpp di jox ñëpp seen waay waaw di la di la déglu aussi dama lay sant quoi waaw. yaa ngi may fekk Kër waaw. si mafia càq-càq yi dim man maa ngi mëru càq waaw. bon instant ñun pare nañ de amatul wàccaay de ñun dañuy ñëw jëlu nu moom ñibi. jàpp rek moo ko gis man man man maa mag bës man am naa bés bu ne man de nuroog Grand Médine revanche laa fay jël si waaw revanche laa fay jël te man maa soxla amul tax ma ne revanche laa fay jël si ba rek naa xa ku ñu naan ndigal ndigal te instant mi ngi bëre arène waaw wala déet. ndigal daf maa daan mbapat kon kuy jël si bi booy bi du ma ko may dara man samay combat du yàgg samay combat du yàgg booy bi prib dib am ak moom kooku du maag moom kooku du maag moom ñaari magam dañuy bëre si bés bi waaw di nuyu di bëggee tamit Aldo Aldo sama doomu ndey la maa moom ñoo débuté waaw yàlla na ko yàlla may nam yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla may nam waa ñoom caatu kees sama booy grand yi ñëpp ñëpp mafia bi di di si woo tamit waa Kasoor sama aliya sama mafia tamit arrêt jëbal dérale booy cag-cag maa ngi la ñuy bëggee tamit di leen woo di woo sama grand yëpp gars yi ñëw si combat bi waaw moom moo man maa ko fa am Omar ba bakki Serigne Fallou Mbacké bés ba luy cosaan xam nga pol Maurice Paul Maurice gars yi namu nañ ko si làmb man man maa indi Paul Maurice dama indi cosaan cosaanu làmb incha allah dama ko indi. dinaa bàq lu neex dinaa fecc lu neex wax naa la bés ba luy taaru si bés bi moom maako fo am. te combat ku xef doo gis jël la waaw. man li ma soxla la li ma soxla li ma moomee te damay won dama ñëw. waa kii dañuy ñëw livré ko rek. wala Sall yow mënoo komb sax. eh avant tout sax ñu may jàppale si contact yi ñu may jàppale si contact yi depuis boobo ba ñoom Alioune. ñoom El Hadj Diko ñoom BG gars ñu ñu sonn dañuy sonn si man si entraînement chaque instant dañ may woo ne ma fan nga nekk waaw dañ may woo di ma laajte fan nga nekk si entraînement ak foo tollu. démb dama waroon dem Konde gi mais dama après dama mujj dem Thiès am benn waaw di nuyu sama sëriñ boobu noonu moo demoon récupérer si bagage yi di ko ne bon gis naa taxawaay bi te laajuma dara combat bi rek moo ko njox est-ce que xam nga ne booy Omar Sall booy bi médd la médd xam nga la mooy booy bi man suñ ma laaj su nekkoon sama bakkan la suba ma teg ko fi jeexal maa ko fa am. yaa ko fa am de. bakki Serigne Fallou. man damaa war wone sama bopp. waaw. medd la laa la wax medd medd xam nga luy medd. damay ñëw jàpp ko rendi rek jéggi. waaye booy munu am munu fa am dara xam nga soo munu fa am dara. Ah. ay ceddo ñoo may ñaanal ay ceddo. ñoo xam ne ne waaye yow boo bi déggoo de bu dee sama baket sama baket laa wax dama koy teel a jëm jëli ko ah, man maa pare fépp guddi fu mu toll. ma fi yaay nañu wax. waaw ñun buñ paree mooy yàgg bu ñëw na bër dañ koy diw rek ndekki dem ñibbi ñu ñoo soxla dañuy ñëw jël daal di dem. dañ koy cag-cag livré ko fot fot dafa leer bu xalaatee rek jeex na waaw jëlal liggéey waaw mais nijaay waaw di bëgg gaa waa garage di bëgg ñëpp mais kii xale bu ndaw la kii fedagul si nan baay parce que sëñ Fallou Mbacké ñun ñoo ko fa am kii xoolal bu nga jàppee duñ def ak moom cinq secondes da ngay jàpp rek tër rek xoolal ñibbi garaawul ñun xoolal amuñu lu ñuy xalaat parce que sëñ Fallou Mbacké bu ko jàppee mu jeex suñu wax na du si ko waa wala laa mujjee incha mu jeex ñoom ñu def. Ama Saliou dama amaat lu may waxaat rek di nuyu waa kër Cheikh na Sadd bu bu baax a baax gis naa seen taxawaay waa Chérif yi ni ngi may ñaanal si combat bi nga xam ne ne combat bi lu si kanam raw li bët ba su làmb ji laa bëgg nga ubbi say bët di ma xool lu fay rafet lu fay taaru laa la wax yàlla baax na yàlla nu yàlla suturaal booy bi man dama xamul la wala mën a am si man booy bi du làmb du mën bëre du dara du fecc du tuus ñëwee du fa def dara. du def tous. dara lu xew bu ñëwee. di tamit suñu waa écurie bu baax écurie Père Diène ñoom Pablo teem ak sama mag waa écurie bi ñoom Fourrière Fourrière yàlla ko yàlla may nam si combat bi suñu bakkeen lañ si teg tamit combat boobu suñu bakkeen lañ si teg moom moo ko fa am Fourrière borom baax la xol bi dara nekku si sunu waa écurie ñu ngi bëggee ñëpp maa ngi bëggee ñëp di nuyu paa bi yàlla ko fi yàlla may mu am gudd fan ak wér avant tout dama woloon sant sama papa di sant sama yaay dama leen parce que ah, gis nga gis nga gis nga ndaw soo jugee di jëriñu rek sa papa ak sa yaayam ñoo tar yàlla baax na yàlla lu si kanam raw lu bët man séntu ma fi fu booy di séntu de man séntu naa fu sori te man maay français bi de eh lamba ji man benn français moo fa man la day xaar. lamb ji benn français moo fa am benn pale booy moo fa am muy man man lamb ba lamb lay laay changé couleur lamb ba lamb laay changé couleur moo déggoo ma de man sama mafia moo baax instant bi nii mafia xam nga sama woo la fii damaa woo booy pour lamb lamb su ma sañoon mënoon naa ñëw esat ñëw indi jaay taar après dugg si géew bu bëre mais damaa soxla lamb ji damay lamb damay lamb ñun dañuy làmb si combat bi dañuy làmb si mafia ma mafia Kër Masaar bi ak ndaru jug fii nii Kër Masaar instant bi fii dafa war am guddi yu fu dafa war am mbër te bii moo dañuy tekkee ko fii amul sax demal ma wal benn rek teesal amul lay laya non may baax <laughs> non bu jour fii la ñuy tekkee xolal wal benn yoon teesal amul yàqalaatee amul lay layaat noonu la demee amul dugub dugub boo ko bëgg a def wal lay ko lay layaat mais ñun nag amul lay layaat waaw wal benn yoon teesal Fallou Seul booy bi mu ngi liggéey xale bu gëm boppam mu ngi nii yàlla na ko yàlla may ndam waaw yow kese dëgër waaw mais na loolu man loolu force la man nee naa la force la suñu làmb man sama làmb xam nga man man beneen làmb de mais man sama dugg si naka gars yi waaj. non taxaw xaar ñu sama simeegu naka gars yi waaj. sama tuus naka gars yi waaj. am na sama benn paa boo xam ne nee na ma sama tuus rek lay moo tax muy ñëw estade sama fecc moo tax muy ñëw estade loolu moom maa ko fa loolu du tey di waaw nuyu tamit samay mbokku artistes yi képp kuy simb woo naa la si combat bi képp kuy simb gaynde laa la wax de kuy def ar di def cosaan woo naa la si làmb ji làmb sa bës la yaay yow waaw. bon di woo ñëpp si signature bi mafia mafia surtout mafia cag-cag yi ñun ñoo ko fa am jeudi arène nationale la dama bëgg gaay ñu. su ma wootee rek waaw ñu départ bul kenn tane nu dem jëli nu moom parce que signature bi la ñuy wane suñu bopp ba su ñu rendi saa mu jeex waaw booy bi médd la de médd médd man mu ne moo wax sax te ba su signature bi la booy bi de xam booy bi du wax du gis du paas ama lii sa kanam yow yow fii jox nga ma ñetti avance booy yi daw booy ñetti avance waa parcelle ñetti avance booy bi moom moo koy jël man Grand Médine dafa dafa am lu ma fa metti sama revanche laa fay jësi booy bi xaw ma day xaw ma da ngay xaw ma mais say mbokk ñaanalu nu la de yow amoo sax mbokk yow toogal foofu di xaar laa la wax combat bi man maa la ko gën a bëgg ma damay contact matin midi soir instant bi maa la ko gën a soxla instant damaa contact ba ñaaw waaw da ngay xaar waaye Fall instant maa ko moom sama première sortie maa ko moom te mafia bi ñëppay ñëw ay eh, mafia dagg sa yaram laa la wax de mafia dagg sa yaram ñëpp Sonko bi ñëpp bon maa ngi woo sunu maire Cheikh Gueye avant maa ngi woo maire damaa bëgg nga jàpp si combat bi Cheikh Gueye Iba Ndiaye damaa bëgg nga jàpp si combat bi samay ami d'enfance ñoo ma màggandoo depuis mapat mooy bu may bëree Mbapat ba léegi ñoom Ibou ñoom Papital combat bi seen combat di woo di sama staff bu bees bi di woo ñoom Abdel ñoom Mor gars yi mafia bi mafia yu nekk mafia bu nekk Kër ñoom mbake Mbacke bu jëppal ñoom ñaga ñaga jël naa nuyoo bi jox ko jox ko sa nga joxal ma ko booyi ak ñoom euh, Ousmane waa jëppal waa di fàtte tamit sunu BG yi sunu BG yi ak sunu maître maître Daouda di bëggee waa Abkido waa Timburon fu may defee fu may defee armation di leen nuyu di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay bu baax waa Timburon di bëggee di wax di wax suñu maître Soulka combat bi sa di wax c'est la première fois may génn sax di wax yenn wax yi mais depuis boobu ba léegi ñoo ko fa am yàlla baax na yàlla ñu yàlla defal sutura ak xéwal ak jàmm salaam di di la bëggee bu baax Omar Saliou waaw yàlla ñu yàlla defal sunu yàlla defal nu jàmm quoi yàlla defal nu jàmm ba bésu làmb ji ñu ñëw jëlunu moom ñibbi si incha allahu rabi waaw di bëggee ñëpp su ma fàttee kenn rek dama waaw xel moo motul su ma fàttee kenn rek xel moo motul mais di waxaat rek bésu làmb ji muy grand combat bi ñu ñoo ko fa am muy sama combat muy combat grand yof boy yi boy yi képp kuy saltal ñoo ko fa am laa wax eh boy bu naw bi ngay waxal de boy bu ndaw bi ngay waxal damaa damaa boo nii jantal BG nii de amuma cicatrice mais maa ëpp cicatrice bandi bandi yi maa leen ëpp cicatrice waaw yàlla baax na waaw di sant ñëpp man awma kenn ku dul samay mbokk samay mbokk man ñu ñu mës a jàpp samay combat depuis ma laa la wax kenn ku dul sama mbokk su ma limee damay juum lu gars yi di wax instant bi nag yàlla baax na yàlla yàlla suturaal rek ba bésu làmb ji jeudi la 15 xaw ma le 18 ah jeudi la di leen woo si bi damaa bëgg ngeen ñëw ngeen wane seen bopp. et eh, bés bi bésu saa yi dama ko war a taarul de waa jeunesse production damaa bëgg ñu am ñu am ko fa. billet yi damaa bëgg mu gars yi nañ ko jënd mu jeex waaye billet yi nañ ko jënd mu jeex ngeen jàppale ma instant bi luy wàllum sëriñ yëpp li jënd naa ko na sen xel dal booy bi médd la médd. maa leen ko wax de booy bi métti la te combat bi du yàgg xef xipp doo gis jël man samay combat musul yàgg yàlla baax na yàlla ñu yàlla suturaal Ama Sall jërëjëf waay kontaan si yow bu baax. bu baax dama may wax damay sant booy yi nga xam ne kenn jàppale wu leen xool ay xele lan te kenn jàppalewu leen xoolal man ma dund soixante juróom benn fukki at yi teg te kenn mësuma jàppale mais dañuy am loo xamante ne ñun ci suñu réew mi ñun ñoo ko moom xale yaa ngi nii di taxawaalu xale bu ci am dara da ngay ñëw jël moto jakata di ko dawal pour am dara te xale yi sax taxul ñu am dara ndax moto jakata mënul yor dépasse kër may ñaan yàlla nag ñun dañoo am benn action boo xam ne métti nañu lool nag xamu lan moo ñu métti dañoo happy wut comme ni ko Gambien yi wax happy wuñu ah dañuy xale yi dañ leen di jàpp ni la confiance et la expérience mënuñu dund ci action boo yaa ngi dewal ni seen moto Jakarta liggéey nii te te mënuñu ko am. xoolal man mi benn la may jël si benn as boo xam ne maa ngi ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla jàppale te yéen ngeen jàppale ñu te te ñu jàppale booy ndax mbedd mi kenn moomu ko te gis nga booy ay booy am jom lañ te dañuy liggéey te li ñuy liggéey nii ci jom lañ koy jox te ñun nag dañoo toog toogin boo xamante ne suñu doom yi la yaakaar ndax boo amee moto Jakarta léeg nga jox sa papa ñeenti téeméer léeg-léeg nga jox sa papa 3000 mais ñun am nañ problème dañoo am confiance boo xam ne la ministre de moom moo war a wax ay ministre am que la yaa ngi dégg li ma expliqué ah la ministre ñooñu li xaalis bi ñuy lekk mënut a nekk ci réew mi yaa ngi dégg dañuy lekk xaalis réew mi xale yi di taxawaalu xale yaa ngi taxawaalu ministre yaa ngi lekk xaalis bi xale yaa ngi taxawaalu xale yaa ngi taxawaalu taxawaalu bu bët ah assemblée nationale laa expliqué xam nga dañoo war a jël askanu réew mi ñu ne dañoo war a bëgg réew mi parce que nit ki boo xamee feebaram yaa koy faj te ñoom fajalu ñu dara ñoom waxuñu ci ñun dara xala yi ku ci dañuy tax nii ñaari booy dañuy jël. seen xaalis boole jël seen alal jënd benn moto jakarta ki di dawal guddi ki dawal bëccëg yàlla nañu yàlla musal te ñun dañ ñoo defal loo xamante ne kenn mosu ñu koo dawal ci àdduna ah man waxuma Macky Sall waxuma kenn dañoo wax ne na ne président boo xam ne te mun nga fee mun a nekk te jàppale booy yi jàppale xale yi man daal xam naa ne xale yi ñu jàppale leen te yal na leen yàlla jàppale barke Seydina Mohamed. jërëjëf waaw